Mhm. Euh, ci li may wax mais man su ma gis man li ma a lu mooy ñu ngi doog a teg pôle pôle pôle le le le le le pôle judiciaire mhm. et financier le pôle le pôle financier. su ma sañoon dañuy xaar ba élection législative passée ñu doog a commencé. Mhm. parce que tey suñu ko suñu commencé poursuite yi tey tey tey lan la ñuy dëgg. daa bëgg a néewal doole opposition. ci législative pour mun a am. loolu ay crainte la d'ailleurs yu ñenn yi commencé. émerger commencé nañ ko wax dañuy bëgg a def. Euh, accélérer bi de calendrier. waaw voilà dañ ko bëgg a pour que ñu néewal doole. ak adversaire politique te loolu je pense que dafa rafetul. waaw muy dëgg mu dul dëgg mais dafa rafetul. surtout que euh, système bi nga xam ne moo ma permettre Macky Sall am la haute main sur la justice moo fi nekk ba léegi. président mu ngi ko supprimer la magistrature. mu daal di mu daal di ko supprimer la magistrature. Eh, pratiquement ñoom ñoo fay dogal. nañu waxante dëgg. Mm. kon dina tax ba ñi n'est-ce pas euh, mun leen a tuumal ne dañ leen bugg a néewal doole pour mun a gagner élection et je pense que loolu euh, dafa baaxul ci démocratie kon man su ma sañoon dinañu bay ba élection législative passée ñu doog a poursuivre élection ñu doog ñu doog a. Euh, def reddition des comptes. c' est vrai que ñu bëri dinañ ci am immunité parlementaire. pour topp leen après day xaw a jafe. Mm-hmm. mais soo amee majorité assemblée nationale. Mm-hmm. je pense que tey euh, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont encore très populaires n'est-ce pas war nañu mën a am ak seen alliés yi. Mhm. Eh, suñu àndee war nañu mën a am assemblée war nañu mën am majorité assemblée nationale pour lever n'importe quelle immunité parlementaire. et permettre aux gens de faire face à la justice. Mm. mais ñoom dañu jàpp ne sax ci réglement de compte la ñu jëm li ñu joxe comme raison mooy bi njëkk euh, feeñ selon ñoom opposition bi notamment waa benn bokk yaakaar ak euh, APR ni ñu affecte yenn juges yi ñoom Maham Diallo ak euh, Mamadou Seck ñu fi nekkoon pune leen sanctionné leen yóbbu leen Tamba bi ci topp ñu ne mooy menace Ousmane Sonko yi ñaar yooyu rek ñu ne wane na ni ci règlement de compte lañ jëm est-ce que peut-être am na ñu dëgg quelque part. bon xam nga le menace d'Ousmane Sonko contre bi mu nekk opposition dafa ko doon wax. waaw na nga xam ne Macky Sall jël fi musa jóge te bés bu fi jógee da ngay rendre compte yàgg na li koy wax. du lu bees. bi mu nekk opposant <laughs> n'est-ce pas. Mm-hmm. Euh, daf ko doon def daf ko doon def. donc euh, je pense que loolu il faut pas aussi trop dramatiser c'est vrai que Sonko lu mu wax rek gars dañ koy interpréter dans tous les sens. dañ koy jël au sérieux quoi voilà dañ koy jël au sérieux mm-hmm. parce que il a caractère très très trempé bon li ma bëgg a wax mooy. Euh, Euh, il faut que ñoom ñii nga xam ne ñoom ñooy pouvoir bi de ñu maandu tuuti ci mbir mi ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam. Mm-hmm. yeneen déclaration jaru ko. waaw parce que déclaration yi moom la ñuy utiliser. Mm-hmm. pour wax askan wi ne nest pas dañu bëgg a faagaagal opposition. kon nañ ci maandu. tu ñu bàyyi évidemment le ministre la justice. Mm-hmm. n'est-ce pas ak parquet bi ñuy communiquer mais surtout que parquet di communiquer waaw procureur di communiquer mais ñoom ñu mandu ci. je pense parce que le fait que Ousmane Sonko di ci wax dafay politiser la reddition des comptes. même nga reddition des comptes tamit c'est une question de volonté politique. <laughs> su dee volonté politique ak luubal alal mi su dee volonté boobu amul. mais il y aura effectivement. <laughs> c'est une question de volonté politique. Mm-hmm. ñoom dafa bokk seen programme. dafa bokk ci li nga xam ne moo tax tey Sénégal yi wóolu leen eh, dañuy xeex système bi dañuy xeex euh, mais Sonko lan moo tax ñu radier ko fàtte xaju fi lan moo tax ñu radier Sonko de la fonction publique mu ngi doon dénoncer mu ngi doon dénoncer ay pratiques de malversation de corruption kon il n'a jamais changé de lii eh, li te Sénégalais yi naw ko bëgg ko mooy il a tout le temps dénoncé comme opposant inconnu d'abord et puis comme opposant connu Mame Mbaye Niang lan moo ko lan moo ko boole mooy histoire Prodac. kon mun naa tous les années qu'il a eu ça dossier Mamour Diallo aussi. voilà Mamour Diallo. Eh, yëpp eh, donc même affaire Adji Sarr bi loolu mooy dénonciation de la corruption moo ko ko jural. donc c'est pas nouveau. la différence c'est que maintenant il est premier ministre et on pense que mun na influencer les juges. donc je pense que réduction des conséquences de volonté politique moom mun na wax exprimer cette politique là. mais su ko exprimer palais mu ne mu entre en branle. na bàyyi évidemment euh, le parquet justice def liggéeyam parquet le, le di communiquer di wax Sénégalais yi n'est-ce pas euh, dossier yi fan la tollu et cetera kan la war a topp ak kan la ñu topp waaw mais il faut vraiment cette sérénité là pour que évidemment euh, ñu bañ a am ñaari xel. ci euh, intention bi nga xam ne moo moo présider. Euh, la réduction des comptes. Hmm. affectation wu juge yooyu sanction nga ko gisee wala pour man xam nga man affectation bi moom normal la man j'ai toujours considéré que Sénégal moom <laughs> Sénégal la rek ah, xam nga problème Tambacounda ak Kédougou euh, lan moo ko andi mooy ñeent fukki at ci gannaaw juróom fukki at ci gannaaw hmm. jamono Senghor nest pour dem ci dëkk yi soo jógee dakaar di dem Tamba mais di nga tukki toute une journée. Eh, parce que daan nañ ko daw sax ñaari fan. voilà c'est ça boo tey suba ngay voilà am na sama benn paa bu boo xam ne c'est un vieux retraité nee na ma am na temps yoo xam ne goudron bi Kaffrine la yemoon. oui <laughs> donc Koungheul sax amuloon goudron. c'est vrai donc taxoon na ba tukki bi dafa dafa métti. soo naree dem Kédougou mais tu peux prendre une journée ou deux journées. Mm-hmm. mais ce n'est plus le cas aujourd'hui tali baax nañu. tey Dakar ba Kidira mën nga ko daw en quelques heures. Mhm. Dakar kii dugg noonu. tey y a de bonnes écoles partout y a partout en tout cas fi nga am mën nga ci faju y en a partout. Mhm. donc tey aucun coin du Sénégal n'est plus n'est plus très loin. Okay. donc euh, yow euh, euh, nekkoon nga juge au niveau du tribunal de grande instance de Dakar ñu la ci cour d'appelu Tamba mais pour moi loolu promotion la promotion la. parce que cour d'appel moo nekk ci kaw tribunal de grande instance donc ñu jël yóbbu la Tamba Tamba soo foo soo bëgg ñëw dakaar soo jógee Tambacounda 10 heures à 13 heures tey à Dakar gis sa njaboot nga delluwaat donc c'est pour moi ce n'est pas une punition du tout okay. ce n'est pas une punition ces magistrats là ils sont restés quand même euh, assez longtemps à Dakar à des mhm. postes à Dakar su leen affecté ci dans d'autres régions du pays mhm. ils doivent Même si évidemment, j'ai vu des gens dans les réseaux sociaux qui jubilent en disant, euh, voilà, on les a punis. Non, ce n'est pas une punition. Okay. On les a simplement affectés dans des régions où d'autres magistrats, plus gradés que eux, étaient avant. Avant eux, am ni la leen gën a gradé ñu nekkoon foofu. Est-ce que ñoom ñoo gën a méritant ñooñu donc pour moi ce n'est pas ce n'est, je ne peux pas accepter que ce soit une punition hmm. voilà. mais est-ce que tam du régime politique yi ñoo koy def punition parfois. parce que dañuy seetlu ne effectivement ku défavorable ak ñoom àndoo ak ñoom wala doxaloo ni ñu ko bëggee rek ñaare mhm. yow lañ fa yóbbu Souleymane Téliko mi ñu nommé démb mhm. euh, directeur centre de formation judiciaire euh, mhm. foofu lañ ko affecté woon Tambacounda sous le régime du président Macky Sall parce que gisoon nañu taxawaaye waaw mais xam nga quand si le magistrat ñoom seen bopp su ñuy defee seen bopp ne dem Tambacounda punition la mais dañ dañ leen di punir. ok mais dem Tamba di fay jàngale. du jeex mos nga dégg enseignant kaas. benn syndicat CAS. ne enseignants yi d'ailleurs mu ñuy doog a commencé ñoom ñëpp à l'intérieur du pays lañ jëm. voilà ah. eh yi mais ñoom yemuñu Tamba am nga ñu Tamba la ñu nekk. Hmm. ci ay bureau climatisé ak salle d'audience climat mais enseignants yi ils vont en brousse. da nga dem farfa ci àll àllu Tambacounda Kédougou gis fa benn enseignant moom rek yore ñaari classe classe multigrade buñ nga dégg alkaati di kaas ne dañ may yóbbu Tambacounda wala gendarme wala militaire. Il n'y a que les magistrats mmh. qui disent que c'est une punition. Quand même, mérite par rapport wala gouverneur mos nga dégg préfet bu kaas ne man dañu dañu affecté comme préfet à Kidira hmm. wala wala bokk euh, Kédougou wala Salémata soo ko dégg gouverneur noonu alors pourquoi les magistrats pourquoi les magistrats lan moo leen différencier par rapport aux autres fonctionnaires de l'État donc moi je trouve que du punition Hein, ils doivent aller à Tambacounda et servir, n'est-ce pas Il faut qu'ils aillent servir les citoyens sénégalais de Tambacounda. waaw Tamba amuloon cour d'appel. bi mm. mu cour d'appel yàggul n'est-ce pas soxla nañu fa ay ay ay magistrats de leur rang ils doivent y aller waaw moi j'ai vu d'autres personnes euh, par exemple le président du tribunal départemental de TI bu Foundiougne. Mm. mais dañ ko yóbbu Saint-Louis comme président de chambre mais il est content. <laughs> et, eh? et pourtant il aurait aimé rester à Foundiougne. Mm-hmm. voilà donc je pense qu'il faut pas dramatiser du point de vue perception la rek voilà perception la.